kon mbokk yi taalibe yi mbokk jullit yépp noonu nga xam ne noonu lañ ko bokkoon ànd ko ak yéen muy équipe bi nga xamee ne moom la daaray Touba Zingonia yebaloon fii ngir di gëstu jeexit yi ngir di nemmeeku yi cosaan ñoo leen dikkaloon fii tey di bésub àjjuma le 17 août ñu amaloon fi ngont moo xam ne ngontum diine la ngontum ak taalibe yi la muy noonu yi nga xam ne noonu lañu bokkoon ak yéen ñëwoon fii ci sanc boo xam ne sancu Serigne Touba te mooy Daaru Alimul Xabiir mu gën a siiwe kon ci ndam yaakaar nañu ne yi fi ëppoon solo ci ay màndarga yoo xam ne yees war a xam la am na yuñ leen ci junj kemtalaay li ko waxtu yi mat maye am na it yu leen ci leeral ba tey kemtalaay li nga xamee ne moom la jot gi bay bi nga xamee noppi nañ ci yooyu yëpp it yàlla dogal na it jotaay boobu nga xam ne mooy jotaay bu gudd te yàgg ñu am koog borom kër gi te yàlla dogal mu baaxee ñu ci sañcub Tuubaa bu jëkk ga nga xam ne génneel nañu tur ya fukki tur yi ak juróom yëpp nga xam ne gis ngeen ko ci photo bi ñu lim seeni tur kon yaakaar nañu ne xam nañu sañcub Tuubaa gu jëkk ba na mu demee ak na ko sëñ bi sañce ak yi ci xew ak daaru salaam ja ak na mu sañc daaru xudduus ak daarul minan ak daaru rahmaan ak yëpp yaakaar nañ ne dégg nañ ko ci biir band bi naka noonu yoonu géej gi sabab yi yépp leeral nañ ko ak firnde yi nga xam ne moo waraloon yooyu yoonu gabon yi wax dëgg leer na nañ te mu nekk loo xam ne wax dëgg taw tawfeex la duñu suñu borom defal ndax xam nañ ne moom mii ñu doon baaxe waxtaan wi defoon na ko ci ay bànd bu muy soogee jóge Gabon waaye bànd lu ci bëree bëri am na yu ca laatu ba xëy na dajale ko dajale dajale ko ca yàlla jafewoon nañu lool waaye mel na ne ku déglu waxtaanu tey wi ak ca doon jàmbat bànd yooyu yaakaar naa ne tey soxal dana seet ngir ne yi ëppoon solo ci xew-xewi Gabon yi yoo ànd ak firnde ak mandarga mel na leer na ci kon ci biir waxtaan wi naka noonu ba tey bi ñu ñëwee leeral nañu it ci wàllu ñibbisi sëriñ bi ak xew-xew yi ci am ak dem ak Mauritanie gi ak xew-xew yi ci gën a siiw ca mooy wirdul maaxoos wi te mu dolliwaat ci leeral it ba tey euh, wirdu wi mi nga xamee noonu la ko sayxul masaayix turuxu suufiya mu nekk isibte taxawaay bi mu ci am kon dana mën a wax ne kon xanaa rek li ñu def mooy lañu waxoon ci njëlbeen ga yal na yàlla ak Sëriñ Tuubaa fayal Cheikh Moustapha Abdourahmane Lo ba li nga xamee ne kon mi ngi koy naal ci yoonu Serigne Touba yi Serigne Touba defal ko ci lu kawe njortam ndax wax dëgg day lii xëy na bu melee ne lu yombit wax dëgg it lu jafe la ngir xëy na nett nett li bu wér boo xamee wax dëgg nag day ànd firnde ak it jot gi ndax bu ñu xoolee ne daanaka mën nañu wax ne lu tolloog juróom-ñaari waxtu wala lu ko jege it daanaka bu ñu dagee waxtaan mooy dañoo dem julli ci timis ñëw julli ci gee bu fi ñu wax ak yéen mel na ne guddi na lool ca daanaka. Euh, kon loolu it ku ko tëyee mag it kon mel na ne kon la mu doon wax it yitteel na ko te biñ ko waxee def ne coono boo xam ne gënaa a coono mënut a ñàkk kon sonal Sëriñ Tuubaa it mooy li ci ëpp kon loolu moom euh, bi ñu génnee ci Mauritanie ji kon ci Jolof ci la ñuy yem ak yéen foofu la it la Sëriñ Moustapha yem ak ñun. kon xanaa li ñuy wax rek mooy di ñaan yàlla yit li nga xam noonu lañu ko tàmbalee ba ñaari tomb rek def ci muy Jolof ji ak njaareem ji yàlla na Sëriñ Tuubaa defal tawféex ñu mën koo mottali ci band yi di ñëw. indi leen jolof ji ak kon jaareem ji kenn ni nga xam noonu lañu ñu indee ak yow noonu la ñu indee ak yéen Tuubaa ju jëkk ja ak yoonu géej gi ak Gabon ja ak Mauritanie ji di leen sant bu baax a baax di sant it kuréel bi nga xam ne tey ñu ñëwoon fii di ko taataan si ca ki nga xam ne moo nekkoon ci wàllu xarala gi ak ci wàllu leeral gi ak ci wàllu niitukaay gi kon di ginda gi nga xam ne kon moom it sonn na ci loolu moo doon yore woon wàllu xarala gi ak wàllu it xeram gi àndoon fii ba tey ak musa gi mu doon ko ci jàppale ci wàllu xarala gi àndoon fii ba tey ak Serigne Dame Diop mu nekk moom mu leen di jàppale ci wàllu kon jumtukaay yi kon li leen di wax rek mooy yéen waa daaray Touba Singoñ yéen waa Italie gépp yéen waa Touba Bergamo ñu ngi leen di xamal ne lii kon benn jéego la ci jéego yi nga xamee ne ñu ngi koy yëngatu ngir tasaare lislaam ñu ngi koy yëngatu ngir gën a xam le yoonu sëriñ Touba yi ci màndarga yi gën a wér ak ci firnde yi xam ne moo gën a leer ñu ngi leen di sant it tey ñaan yàlla sunu borom nangul ñu ca barkeel ñu. Ah, tur bi nga xam ne moom ngeen yónni woon it ngir ñu leen di taatanal xibaar yi it ah ñoo ngi ñaan it ngeen ñaanal leen yàlla ba xibaar yi nga xam ne moom lañu fi taatan ñu mën koo jariñoo ñi koy dégg it ak ñi koy jot it ñëpp ñu mën cee jariñoo. kon yéen ñëpp ñu ngi leen di balu àq te di leen balu àq te di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci turu daara Touba Sengoña jamhiyatu taawun ala taatillahi wa rasulihi Touba Bergamo yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu ki leen doon euh, wax ak yéen kon di seen mbokk moo xam ne xëy na miin ngeen ko xëy na miinu leen ko ñu ngi leen di nuyu ci turu mbooloo mépp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu بهم أرتجي من تسليس أين تجور يصنونني وقت اقتراب لديهما عسيرا لهم والكل سمعيان الكرام لديهم عسيرا لهم والكل سميه خيار أسارى لسياتني والهوى رب العرش جل والهوى رب العرش جل سي